Euh, la chanson de la victoire la musique de la mën exclusivité de Sénégal TV oh la chanson de la victoire xam damay ragal euh, xóotal ci. Mhm. ba pare euh, def une une communication. mensongère lañ kay wax moy ah. wax li génn donc. non non non parce que tamit Ousmane Sonko Euh, xutba la <laughs> waaw mais loolu mais loolu. Euh, moo waral foog ñu dajewaat. Mm. parce que suñu waxtaan bu yemee fii du neex. te loolu léegi da nga may may mu génn bu ko defee ñu amaat beneen plateau parce que li, sunu plateau bi yakarna soful sooful sunu mbokki internet yi nga xamni ne ñoo ñuy seetaan actuellement et pour que ñu mën ko pérenniser mayma lolu loolu génn. quelques paroles rek les quelques paroles rek ci ko koor lañ nek dañu wara may quelques paroles. gis même titre bi sax. titre bi sax wóoraguma donc parce que on dit bon pour l'instant ci projet bi j'ai écrit la chanson de la victoire mm. mais titre bi wóoraguma je ne sais pas est-ce que ndam li la koy tuddee wala am nga tout simplement wala I don't know pour l'instant je peux pas trop dire mais du parce que parce que ñong ci fabrique bi te bobu buma ma ci fabrique bi du phase bobu presque phase finale la té inspiration bi composition bi écriture bi moy doon phase initiale bi te mu gëna good parce que lolu

Bassirou Diomaye Faye le président Bassirou Diomaye waaw man day euh, mooy ma la wax rek euh, wax ci diggante Bassirou euh, ak Diomaye mooy wax ci diggante Abdou ak Guité quoi donc pour man. loolu wax ji nga xamni ni la peut-être xeyna xam nga Sénégal du ko waxtaan la tamit waxtaan dafa neex tu ataay ji jolli sunu mbokki walu walu ñi kaay leen ñu taasim wuti gette tiaf xam nga tangal nonu di boxam ah, xam nga bu ko defé dañuy waxtaan rek di bàyyi muy dem rek ku ne génne say idée ya y'a pas de mal y'a pas de mal c'est ce qui fait le Sénégal c'est un pays de dialogue de communication de vision de et cetera mais li am solo te ñu war ko jàpp ni actuellement nii mooy ñaari jëmm yi jàpp leen ni benn la ah. ils nous l'ont prouvé par le passé te lii renforcée. koy sommes renforcer ñun am pour lu koy wala waxtane ou lu pour man wax wax waxi mbedd la waxu waxu waxu buntu la ah, te en général euh, day des plombs sur les ailes et c'est y a pas de sens en ça donc euh, non pour Mandala. non non non non non non je pense que le coup d'envoi est donné c'est ce sont ils sont pleins d'énergie hein. tu vois la lumière qui dégage quand quand quand ils surgissent non mais franchement profitons de cette énergie pour rebâtir notre terroir pour rebâtir notre cher Sénégal parce que comme l'Américain l'avait dit yes we can je pense que c'est possible et Inch'Allah ça se fera merci beaucoup alors waxtu euh, bi dañuy tënk xam naa ni euh, amee internaute tamo nañu mbégte bu baakha baakha baakha a baax di dalal Abdou Guité artiste musicien sénégalais mom lañu ñu sekk waxtan entretien spécial ci li nga xamante ni moom moo actualité politique rawatina le nouveau gouvernement bi nga xamante le président Bassirou Diomaye Faye ni ki démb na son premier ministre euh, Ousmane Sonko ni ki tay ñu ngi ni ana lan mo ci nar a des Abdou Guité ñu bàyyi nga di tàggatoo waaw waaw jërëjëf euh, kontaan lool ci ci recevoir leen euh, di ñaanal l'équipe équipe bi nga xamni, ginnaw ginnaaw Ousmane euh, Sonko ak valeur moo nekk ca wet ah valeur je veux parler de professeur Mary un homme pétri de savoir de talent doté d'une sagesse d'une tranquillité hein, de de de de savoir-faire et franchement loolu bu amee da ngay gis ni wax dëgg yàlla li daje li war a daje ngi daje kon di ñaanal yàlla Sénégal doon gën gi réew bu ko defee yow man a kaneen ñun ñëpp ñu àndandoo dakase <laughs> merci très chère sœur merci beaucoup